mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue de presse NCA surance auto seen savon de Marseille Alfay Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme opaliya seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen di may li ci yéenekaay yi li ci yéenekaay yi Barthélémy Ngom lañ ci àndal dal leen jàmm situation bi mu ngi gën di doy waar mbas mi mu ngi wéy di yóbbu ay bakkan bilan bi ci ministère bi joxe ni ki démb tiis na lool 14 morts fukk ak ñeenti nit ñoo ñàkk seen bakkan ci feebar bi ni ki demb ba fii feebar bi yóbbu na lu toll ci junni ak ñetti téeméer ci ay bakkan source aanée yokk ci nag juróom fukk juróom-ñeenti cas grave yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sowétas ci jamono ji yéeni kaay bi ne variant delta daal mu ngi def lu dara jarul ci réew mi lenn rek vacciné wu wa ila barsaq Macky Sall ci yéeni bi ne l'heure est mu ngi ko waxee ci tournée yi mu doon amal ci CTE yi dem na dalal jàmm dem hôpital Idrissa Pouy dem Fann dem principal ci biir Vox yi mu ne am na foo xam ne bu ñu fa yeggee hôpitaux yi dootuñu mën a faj malade yi médecins yi dañuy sonn ndax fukk ak juróom benn weer ñu ngi ci xeex loolaa tax njiitu réew mi di sàkku ci askan wi ñu dimbale médecins yi ngir ñoom it ñu mun ñoo dimbale te ndimbal googule du lenn lu dul dem vacciné wu ba pare di respecté lii di geste barrières yi Macky Sall joxe na avertissement bu mujj la Vox Populi xamle l'observateur ci wàllam li mu gis moo di fajkat yi ñu ji tiim ay néew loolaa tax docteur Ibrahima Fall di médecin ca dalal jàmm ne dañoo traumatisé ci jamono ji naka la noppee rek naataangoom docteur Xarjata Diallo Mbay bu fan féelu ko ne seen coono foo ko natt rek weesu na ko yokk ci ñu ci bari ci ñoom médecin yi virus bi dalee na daaneel muy nag lu doy waar tax njiitu réew mi ci yéenekaay bi di Le Soleil yëkkati wat kàddu sàkku ci askan wi ngir ñu dem ñàkku ji ba noppi wéy di respecté lii di geste barrières yi wa ilaa du baax ci Sénégal laas ne Macky Sall day gësëm na Abdoulaye Diouf Sarr ak i nitam laata nag muy sàkku ci Sénégalais yi place bàyyi déplacement yu bari yi ak ndaje yi rawatina ci xew yeeg yeneen yu ko demee la soleil ne vaccination bi daal ba fi moo fi sës te ci loolu Sénégal mu ngi ciy defi jéego démb rek daloo nañu lu ëpp juróomi téeméeri junniy vaccin am na it yeneen ñaari million gu dose yoo xamante ni war na yegg si fileeg weeru août yéenekaay bi xayma ne li ko dalee weeru mars ba fii Sénégal dépensé na lu ëpp téeméer ak fanweeri milliards ci sunu koppar ci xeex bi ñuy xeex mbas mi mbas mi ak conséquence am ndax du tax ñu yi ba xam yéenekaay bi ne am na ñoo xamante ne ñu ngi nekk di ci liggéey ci suuf fi léegi fan dana leer ndax dañuy toxalaat élection yi am déet sama naataango ne li ko leer daal mooy am na ay réew yoo nga xamante ni mbas mi teewul ñu amal seeni élection Côte d'Ivoire ci la Mali ci la Burkina ci la ba ci sax Guinée ma génn ci la tribune dugg ci yéenekaay bi di l'observateur ak kàdduy Malick Gakou bu Grand Parti moom nag ma ngay artu ne confrontation moom mënta ñàkk ak régime Macky Sall bii ba tax na muy sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci kujje politique bi ngir ñoom ñépp ñu booloo doon benn ci gannaaw kii di maître Abdoulaye Wade ngir gën a mën a jàkkaarloo ak kii di Macky Sall ak régime am rawatina ci élection locale yi ñu jëm ma jëm ci yéenekaay bi di le quotidien moom ca conseil constitutionnel la yeewoo tey li Moussa Diaday mat na Macky Sall tàbb na trio wam yéenekaay bi dafa gëstu ci profilu ku nekk ci ñetti ñëw bees ma Mamadou Badio Camara ci la Aminata Ly Ndiaye ci la Youssouf jaw Mbodj ci la le soleil yeggali ne conseil constitutionnel daloo na ñetti magistrat yu bees l'Obs ne les sages de Macky Sall Vox Populi feelu ko ne Macky yeggali na casting ba ma bàyyi foofu dugg ci beneen yéenekaay di coowal sëy la xëyee tey Abdoul Mbaye ak soxnaam gawoon yéenekaay bi de biens la ñu signé woon depuis 1994 waaye nag jeexagul de ndax des na beneen atte ca Cour d'appel bu Ziguinchor le 12 août lay doon ñu utali sunu lamb ngir jeexal Balla Gaye 2 Bombardier Siteu Papa Sow Boy Niang ak Tapha Tine combat yooyu yëpp dootuñu am ci seeni date ndax toxal nañu leen ba jëmi jamono mu dib dogal ba nga xamante mu ngi tukkee ci gouverneur bu Dakar Dakar ñaari mbir la waxoon promoteur yi huis clos total wa ilaa bàyyi promoteur yi ne ko huis clos moom gouverneur mënta nekk gouverneur ne leen kon boog baax na ñu reporté Gaston ne décision bu sage la Doudou Diagne jeko mel ni ku ne muñ rek ku amul ndey namp maam yendoog jàmm Sedima mi